waa bio Afrique nag ay produit naturels la ñu yor yoo xam ne jéggaane wuñu ko ci biir Afrique gii lañu ko jëlee waaye dañoo am ñaari produits maanaam ñaari garab yu baax lool ci wérgu yaramuk doomu aadama bi ci njëkk nag moo di sangomar sangomar nag lépp luy ndoxum siti wala hémorroïde da koy dindi ci nit ki ba mu jeex tàkk raxas ko ci yow waaye du yem ci loole ndax am na vingt et un maladies maanaam ñaar fukk ak benn ci ay jàngoro yoo xam ne nit ñaa ngi koy sooxaale booy jël garab bii di sango sangomar nag mën nga caa mucc waaye sangomar it day yokku kattan waaye yokku kattan googee waa bio afrique dañu caa am produit bu doy waar ñu koy wax ndaa tell ndaa tell boobu nag sunu mbokku góor ñi la soxal ñi nga xam ne dañoo néew kattan rawatina ndax ndaa tell boobu ku koy jëfandikoo sa doole dina yokk ba noppi te di nga yëg tamit ne sa dayo awra mi ngi yokku te doo gaaw a yëg sa bopp waaye moom ndaa tell nag produits yi nga xam ne moom la ñu ko deferee yépp naturel la maanaam amul benn produit chimique fii ci Afrique la ñu ko deferee rawatina ñambi bi nga xam ne réew mi xam nañu ko loolee mooy base bi ñambi képp nag mu bawoo ci réew mi waaye yeneen produit yépp ci dénduk Afrique yi la ñu ko jëlee waaye waa bio Afrique nag seen liggéey boobu dañ ca ànd ak mag moo xam ne ay atam romb na juróom benn fukki at bio Afrique nag ku bëgg a jokkoo ak ñoom numéro yaa ngi nii mooy 78 612 vingt deux vingt deux beneen bi di soixante dix huit deux cent soixante treize trente trois trente trois kon ku jokkoog bio Afrique di nga ci am lu kawe sa njortu. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Bamba Dieng ba mu nekk di Lorient tey jii Lens lañ doon dalal waaye Lens dafa am ndam seen kaw dóor leen ñetti bal ci benn doomu Sénégal bi nag départu titulaire ci deuxième mi-temps bi la dugg waaye bi mu duggee nag footballut fukki minute génnaat ci ab blessure. nañu ko ñaanal nag mu nekk blessure bu bañ a garaaw ndax moom ci boppam bi muy génn da doon jooy muy Bamba kon nañu ko ñaanal nag blessure am boobee bañ a garaaw match bii di ñëw këlëbam di Loria am ko mu mën caa bokk ndax footballub Sénégal am na lool yaakaar ci moom waaye dinañ leen ko toppal incha allah lu ci ruusandi rek ñu indil leen ko. ñu jugee ci Bamba ak xibaaram bu naqari jël beneen doomu Sénégal di Habib jara moom nag ma ngay football ca Strasbourg gu gone gi milier de terrain bu mën la muy def la. club bu ñu naan Marseille nag li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Strasbourg saison bii di ñëw mu jàppale leen ci seenu milieu de terrain ndax waa Marseille li leen gën a neex ci gone gi moo di droit maanaam ci digg bi foo ko teg mu doxal te muy def mën na ko ma ngay def ay paas yu baax di doxal ca digg ba jamono ji waa Marseille li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Strasbourg bu ñu sukkandikoo ci foot mercato Habibou Diarra nag la muy def mën na ko lool kon nañu ko ñaanal loole yemb mu am club bu mag ndax footballub Sénégal am na lool yaakaar ci moom. ñu jugee ci Habibou Diarra jël doomu Belgique bi di di Divock Origi di football ca AC Milan ba mu fa demee nag taxul mu yàgg lool ca Liverpool la nekkoon waaye doxalagut nag ca AC Milan AC Milan ndogal li ñu jël moo di bu saison bi jeexee ñu teqalikoo ak moom waaye su fekkee loolee am na nag doomu Belgique bi mën naa bañ a lamb ndax club yu mag nekk ca Premier League ba ñoo ngi koy bàyyi xel muy West Ham Aston Villa ndax moom miin na Premier League ba nekkoon na ca Liverpool waaye yemul ci ñaari club yooyu képp ndax ca bu Turquie tamit club yu mag ñoo ngi koy bàyyi xel bu ñu sukkandikoo ci Tutto Mercato kon bu fekkee jógee na ca AC Milan mën naa bañ a lamb muy doomu Belgique bi di Ori guy gi nekk attaquant bu mën la muy def xibaar boobu Tutto Mercato moo ko xamle ñu jugee ci ori gi dem ca waa Borussia Dortmund ñoom nag amal nañu jéego bu ama am solo ngir jël Bundesliga bi saison 2022 2023 li leen ko may moo di ndam li nga xam ne am nañu ko tey jii ci kaw Augsburg ñetti bal ci dara lañ ko dóor démb Bayern de Munich dafa daanu ci kanamu RB Leipzig ñetti bal ci benn jamono jii nag mun moo jiitoo Bayern de Munich benn point te benn journée moo des maanaam benn match képp moo des ca Bundesliga ba samedi la ñu koy jongante Mayence la Borussia mun di jàkkaarlool match boobee une heure et ci heure Sénégal ci lay door su fekkee Borussia mun am na ndam rek day jël Bundesliga bi su fekkee loolu am na nag dina def lu mu gëj a def ndax fukki at ci ginnaaw jëluñu Bundesliga bi ci atum 2012 la ñu ko mujjoon jël 2023 bii nag jekku nañu lool ngir jël ko samedi bu ñu amee ndam ci kaw Mainz rek dañuy dégg daal yi ñu jugee ci waa Borussia mun dem ci ba Bayern de Munich bi nga xam ne daanaka ñàkk nañu Bundesliga ba ñoom nag dañoo bëgg doomu Serbi bii di Vlahovic nekk ci Juve li ñu bëgg moo di dolli seen dooley attaque boobee Fabrizio Romano nee na yuufe nag bu demee bay jaay doomu Serbi bi li mu ca bëgg mi ngi toll ci quatre-vingts millions d'euros kon Bayern de Munich su fekkee bëgg nañu Vlahovic li ñuy génne moo di quatre-vingts millions d'euros ngir jox ko waa Juve mu dem ca Bayern de Munich jàppale leen xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle. ñu jugee ci Vlahovic ak wa Bayern de Munich ak seeni bëgg-bëgg dem ci lu ñaaw li am ca Mestalla Mestalla nag mooy stade Valence Real de Madrid lañ doon dalal tey jii. dóor ko benn bal ci dara mbir mu ñaaw mi nag moo di Vinicius mii ngeen di gis dañ ko doon yuuxoo ci wàllu racisme maanaam boo di retraite Vinicius taxaw ne dootul football fexe na nag ba wane ki nga xam ne moo ko doon yuuxoo waaye mbir ma kat mujjut fenn match bi sax arrêté nañu ko lu yàgg mu door a dooraat Vinicius sax li mu bëggoon moo di génn ca stade ba lu ñaaw lii nag daanaka amatul fenn fudul Espagne kon waa Espagne war nañoo càmbaraat seen football ndax der bu ñuul sonn na fa lool. lii nag li koy firndeel moo di ñàkk xarañu ñu ëmb liga boobe rawatina seen président ba di Tebas ndax kat foofee ca Espagne lii bëri na lu mu fay am ndax yuuxoo yi ñu ko yuuxoo mer na ko lool moom Vinicius waaye Vinicius ci boppam nag wax na nee na moom li muy dégg ci terrain bi moom képp moo ko xam te naqari na ko lool nee na moom jamono ji amatul envie maanaam amatul bëgg-bëgg sax football foofee ca Liga Santander ba kàddu yooyu nag bi match bi jeexee la ko Vinicius yëkkati dénk ko waa Marca yéenekaay ci fàttali match boobee sax doomu Brésil bi di Vinicius yeggaliwu ko ndax dafa am carton rouge ca match boobee waaye mbir mi daal ñaaw na lool loolu nag ñi ko naqar lu bari nañu ndax wàllu rasisme moom dañ ko war a génne ci football bi maanaam boddi konte ci xeet ndax ñun ñëpp benn lañu ñu jugee ci waa Real de Madrid dem ci seen wujju yi di waa Atlético de Madrid ñoom nag tey jii Osasuna lañ doon jàkkaar lool ko ñetti bal ci dara ndam loole nag tax na validé nañu seen billet bi leen di yóbbu Ligue des champions maanaam ñoom déwén incha allah ku leen wokku ci Ligue des champions ba ñu xuri la loolee nag tax na bii mooy onzième fois bu tegalo maanaam fukk ak benneelu yoon Atlético de Madrid di qualifié ci Ligue des champions kon liggéeyu Diego Simeone ma ngay feeñ ca club boobee te laata mu fay ñëw waa Atlético de Madrid ci seen histoire maanaam seen taarix juróom-ñetti yoon képp la ñu dem Ligue des champions te jamono ji tegle nañu onze fois di dem Ligue des champions ñu jugee ci waa Atlético de Madrid ak Diego Simeone ak liggéeyam bu rafet dem ca waa Chelsea ñoom it tey jii dañoo nërmee looti ci kanamu Manchester City benn bal ci dara défaite boobee nag tax na bu saison bi jeexee